Euh, jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balwaq di leen fàttali rek euh, yéen a ngi seen site bu mag boobu di senego point com ni ma leen koy waxee rek ak Senego Sénégal day dem tey nag ñu dellusiwaat ak yéen seen émission bu mag boobu ñu naan coow li ci làmb ji dajawaat ak benn xale boo xam ni dëgg-dëgg kenn dootu ko présenté ci réew mi wane ne li mu mën ci làmb wane xarañteem mën a bëreem di représenter tout la commune de Grand Médine ñu gën ko xamee ci kan muy le grand champion Brise de Mer Brise de nag defe naa ni li mu jot a livré ci ay combat yu mag di ay combat yu am solo Sénégal gépp teg nañ seen bët xanaa digganteem ak Baye Pël war na leen a doy digganteem ak Fifty Cent dëgg-dëgg kenn waxatu ko waaye digganteem ak Naaru Sokaas bëre fectage gin gi néew combat bu rëy boobu ba kii mu mujjee bëreel di Alioune Seye numéro 2 li ñuy def rek mooy dañuy seetaan élément bi. seetaan combat bu rëy bi mu jotee livré bu ñu yëg pare del soit ak moom ci combat bi. ce mardi 28 juillet 2015 au stadium Iba Mar Diop première édition drapeau trafic. gëdd Junior de Waalo brise de mer Dóor waar ñu ngi lewtoo bare nañu 15 minutes ndam demul ndam ñu nopp lu juróomi minute del soit. dëgg la El Hadj Malick de gauche droite. waaw waaw Sadio Brice Sane waat na gauche. daw na songu mais baaxul daw yooru jël Alioune Seye rasu rek. baaxul. sëq ca gañe ya. Alioune Seye junior téye na Brise de Mer na. loxo Brise de Mer ngeen gis noonu loxo Alioune Seye ngi noonu. ku ne Seye nga gañoo. ku ne téye nga gañoo ba mu dëgër. ndeysaan. oh. jargandalu nañu. waaw waaw door na ba rëb. Alioune Seye jëm na ko bat. door na ba rëb Brise rasu. rasu la rëcc la. xale bi def retrait de corps ci koom. Alioune Seye Junior bañ na. Alioune Seye Junior wàcc na. Alioune na. door na daw na jël ko. Brise bañ. Alioune Seye ngoobu. daal di dëpp naax. ndeysaan. ñu téye te ñoom ñaar Brise de Mer. waa Brise téye na door na léegi. jàppam moo gën a jekk. ma ngi koy a daan. koy jéem a daan Brise de Mer Alioune Junior lu arbitre bi wax. arbitre bi ñu xool arbitre bi Alioune Junior daan na Brise de Mer. arbitre yi jox nañu victoire Alioune Seye Junior. jërëjëf euh, Brise de ñoo ngi lay nuyu. waaw buur maa ngi lay sant. di la gërëm di la nuyu. di nuyu Sénégal di nuyu waa Grand Médine di nuyu samay dëkkandoo di nuyu képp supporteru Brise de Mer maa lay bu wér a wér. Euh, xanaa rek euh, Brise dañu attaqué waxtaan wi directement. Hmm. Euh, Brise de Mer. Hmm. gis nañu nga livré ci saison yi mujj. Hmm. ay combats yi spectaculaires. yu am xeex yu am bëre. waaye dafa mel ni Brise combat bi mujj yi. day xaw a wàññi bëri bi. mise ci xeex bi trop. waaw. waaw buur xam nga jaam moom natt bu ko dal rek da koy nangu te man gëm naa ne sama combat man damay dama doon bëree du ma am benn problème duma ma am benn blessure sama ñaari combat yi paas yëpp bëgguma ko sax wax CNG di ko kii ndax dañ koy bañ combat yi paas yëpp blessure laa ko bëri sama combat Fifty Cent blessure laa ko bëri sama combat bii nii blessure laa ko bëri. te la même blessure bi ngay am. non bokkul mais même pied bi la même tànk bi la sama baaraam bii nii. sama combat bi keroog ba mu taxawee. keroog jour bu ma jëlee avance bi keroog la sama baaraam bu ndaw bi damm baaraam ndawu tànk bi ba léegi mën naa la ko won man tëdd 15 jours yoo xam ne si biir koor gi dama ko toog entraîné wu ak weeru koor nu mu méttee li nga war a fu nii li nga war a jox suñu borom ci koor gi nga joxe ko xama ak tamit métit bi mënoo dem entraînement combat ba weeru koor bi amee ba mu jeexee ba am cinq jours lañ bëree combat ma jógee fi dem village amaat beneen taw bu mag bu amoon Kaffrine ba suñu waa gàll ndox mi xaw a leen sonal ma nekk fa di jàppale ba sama tànk bi yëngatuwaat xam li ma la ma reprendre ñëw daw daw ma sax si maara ma sax si ma dama retourné waat ñëw ba mu dese cinq jours cinq jours laa sol gant ci combat bi si laa ci contact si laa dem bëre ji sama baaraam bii nii parce que dafa amoon paf bii nii dafa amoon problème moo tax boo xoolee droite bi duma ko dóor damay miime rek buñ jàppantee ba daw ndegeñ laay dugal góos dóor ko kor di dugal góos métit métit bu laa bëree ci combat bi. parce seen combat. waaw ndax ku ne xam ni droite bi daan dox. da dox mais dama gis même sa combat bu mujj bi. Mhm. da nga limiter sa axe droite mhm. boobu. maanaam da ngay miime mooy li nga wax. waaw kor ko droite. Mhm. dugal ay uppercut gauche. voilà loolu lañ doon bëree boo xoolee. dugg na samay falaat dafa man xam naa ne su ma nekkee nice ma mënul am si man dara. parce que li ma doon bëriwaale ak fi may yegg te duma ma mën a daan man xam naa ne kii bokkuñ qualité te bokkuñ normalement bi woo ma ne ma nañ ko reporté ma ne ko du ma ko ci. parce que ki ko tëgg xale la te ngor la kii jom la dafa jom ngor la ko tëggee dama ko yeggale ji ak lu métti métti damay dem bëre ji xale bu ndaw la da gëm boppam tëgg làmb ji xool ñaari booy boole leen dem ba si biir di yenn kii man yooyu sa gàcce laa ko def am na loo xam ne ni ma mënu ma ko xam li ma la ma wax dama koy bëre ji junior bàyyi na ba une heure du matin mu woo ma ne ma sa contact gis naa ne sa bëre sa dóor xaw na des bàyyil ñu reporté combat ma ne ko bàyyil ma bëre ji si laa dem bëri man xam naa ne bu fekkee maa ngi jàmm ak jàmm rek booy mënut mënul mënul si man dara. mais est-ce que mën nañ dellu si waat bi nga nga décortiquer ma ko. bi dafa soufflé ma xool booy bi xam naa ne du ñëw ndax dañ na ko brise day ñëw mu téye boppam ma xam ne su ma fa nekkee di léewtoo combat bi gis nga nu mu yàggee. day gën a yàgg nii la jëm ma ne xaaral ma dox si kawam damay taseeg moom bu ma dóoree coup sax garaaw ku bu ma jël noon ba dem àdduna noonu maa ma maa bëgg jël coup am pour dox kawam pour mën a jàppante moom moo tax ma bàyyi ko pour dox ko mu dugal gis ne bi mu ñëwee dafa téye bopp waaw dama ko bàyyi dama wàccee sama garde di ko nax dama bëggoon bu xàccee rek ma jiyoo ak moom mais dafa dóor ba dooree dóoree bi ma mel ni kuy sëgg tase coup bi mu def déplacement ba ma songee fekk ma ko fa ma doxaat koom si la def ku ma dem ardu ñëw combat bi commencé waat mu daw songaat ma ma daw dëbb ko nax mu daw génn saako yi ñaar yoon génn na ko saako saa bu mu ne bëri rek day daw moom du nangoo bëri man ci biir géew bi. waaye waaye moom dafa mel ni keroog consigne la bëri. consigne la bëri. Mm-hmm. parce que consigne la bëri xam-xam ni. moom tamit du mbër mu tam xaar. waaw mais keroog def na lu bokkul. ci waaw mm-hmm. parce que xam nga lu tax man attaquant dañ koy wax demal waat ñu ne ko toogal man xam naa ne du ñëw bon fii nii làmb ji ma sama bopp de sama classe sama morom yi amul benn mbër bu at bi suuf la mu dox sama kaw xoolal sama combat yëpp bàyyi pa li mu daan dox ci kaw booyee ba at bi soufflé dafa taxaw ma dox si kaw génne ko saako ñaari yoon jàpp ko daan naar sokaas lu muy song lu muy gaaw gaaw gaa yi di daw sóoraale ba mu ne bëre dama moom daw jàpp ko dóor ko iberkin mu sigg ma daan ko jël bu rëy Tyson gin gi neew noonu day dóor gaa yi dañ ko doon daw dama bàyyi dama dugal suul sama tànk bàyyi ba mu miime ma jiyoog moom mu dóor ma ku ma daw boole ko xeex ak xeex bu métti bu ci dugg gis nga li muy bëree mm, ba ma ko jàppee desul dama tase moom man duma ma aneer ci làmb xaw ma ko gars yi bëri dañ naa ma brise di def ndànk di kii mais nit ku nekk li nekk sa deret loolu ngay bëree mhm. man borom jom laa dafa am lu nekk sama ginnaaw am na loo xam ne xalaatuma ko mu ko nii ma nekk fa tendeefal ba supporter yi kii bu dul man brise dafa am mbër dafa am supporter amateur yoo xam ne nii xaw ma leen dañ bis buñ déggee brise damay tase ñoom si yoon ñu taxaw gaare seen oto wax ak man buñ déggee brise du question ñun dañuy ñëw pour nekk si supporter wala nekk sa fans wala ñu sol ay t-shirt affaire yooyu mais ñun dañuy sangu ba seet ñëw ca loose ba toog ngir sa combat parce que yow li ngay bëree nekkul nekkul loo xam ne da nga koy kii quoi. Hmm, mais léegi diggante waa bi nga ko dëbbee naax. après yow da dem ardo. waaw dem naa ardo mais moom tamit dem na ardo. waaw moom moo mujjee dem ardo. Hmm. man maa man maa préféré pour jël coup bi pour dem ardo. Hmm. parce que xam naa ne saabu ma miimee day daw. boo xoolee combat saa bu ma miimee day daw. daw naa xàcc mu yaakaar damay kii ma daw na ñarme tànk yi jël ko pour war a buddi si diggante ñaari kii arbitre atte mais arbitre na bàyyi action yi parce que dañ na bu commencé si buntu bi. dañu waaw mën nañ ko yeggale ci biti mën nañ ko yeggale ci biti dama ko daw jël tànk bi ci biti mu daw génne benn saako benn tànk la génne boo xoolee dañ ko wax benn tànk la génne ma daw jàpp ko war a buddi arbitre àtte combat bi arbitre yi tamit hmm, war nañ wax ci ñoom parce que genre site yu mel noonu boo xoolee hmm. euh, li mu indi ay problème aussi ci làmb ji bari na te gis nañ fi mbër bu démarré action hmm. ci biir jeexalee ko ci biti ñu jox ko victoire gis nañ ci exemple lu bari gis nañ ci exemple combat Lac Rose ak Amaneex. Mhm. ak yu mel noonu. donc am na problème am na problème. am na problème mais mais souvent da ngay gis nga déclenché action ci biir génn ko ci biti bu ñu ma arbitre di woowaat leen ne leen leen. dafa am benn kilifa bu mag bu nekk CNG ma tase moom benn jour du ma tudd turam man waa père mu naa ma ne ko ne ah, arbitre yi nga yaakaar waruñ jotul ñu wax ak ñoom bëree combat ma ne ko ah, amoon doom juy bëre di nga xam nooy arbitré. bëree combat dafa métti trop mu ne ma ama ah, na ko si bàyyi fa bàyyi bàyyi yaay bàyyi ay supporters bàyyi dëkkandoo ñëpp di la ñaanal nga dem combat warul mun a am ay takk suuf ku dul juum nag amul mais am na yoo xam ne dafa yomb trop combat yoo xam ne da ngay préparé ñëw ñu jaay sa combat si lu yomb. Mm, te te boo dugalee du mujj fenn mu ne ma boo xam naa dinañ xool kay ma ne ko parce que xamuñ làmb mu ne ma dinañ xool est ce que duñ mujj jël sax ancien mbër yi di leen def ay ay ay ay ay arbitre ma ne ko ba léegi loolu boo ko defee dina am dina am tuuti. problème ndax ancien mbër bu nekk fu mu toll nii da uuf écrit mhm. te tey boo jëlee sa arbitre yor sa mbër bi war a bëre non far dafa métti trop mënoo ko mais mais tamit ce que gis que léeg-léeg gars yi dañuy jàpp arbitre mystiquement loolu loolu mën na waaw loolu aussi waaw am na mais tamit am na arbitre yoo xam ne defuñ formation kanaa xamoo làmb normalement lépp su nga fubal boo juumee arbitre bu ñu defee yenn kii dañ leen sanctionné ñun mosuñu jël benn affaire benn action daan ko ci arbitre yi mosul am chaque instant dañ ne arbitre sur le Méditerrain lu mu def loolu la mm-hmm. nga dugal sa recours gars yi xool lekk sa xaalis mm-hmm. dugal toog waxtaan site am na wala site amul am na site yoo sax mënuñu ko gis mm-hmm. dafa am loo xam ne ni si làmb ji ngay toog di ko gis mais mënoo dem télé teg say cassette am na loo xam ne ni caméra gaaw na trop mais am na loo xam ne caméra du ko wane mais kon yow loolu dafa feeñ ci sa combat bu mucc daf man naqari trop boo xam ne yow est-ce que mën nga <laughs> expliquer verdict bi daf man naqari trop parce que man ñëw naa bëre si bëre si ak euh, ak ay ay ay ay jafe-jafe man xam naa ne tamit géré naa sama combat ba ñu def mi temps ba gars yi demaat affaire yooyu noonu ñëwaat ñu door a tëggaat ba dem nañ daal ba temps bi war a jeex benn arbitre bi ba mu dawee ñëw boo xoolee boo tegee arbitre beneen arbitre dafa daw ñëw di laaj beneen juge bi mu naan ko taw baa ngi ñëw taw bi mu ngi ñëw ñun lu suñu yoon taw suñu boy yi dagg nañ biyee ñëw nañ toog ñu bëgg làmb a ngi seetaan ah Sénégal ñëpp a ngi seetaan mais nañu bàyyi suñu combat ñu yëgale ko ay xale lañ. même bu dee day taw. même bu dee day taw sax mais gis nañ fi làmb. compétition la Moustapha Gueye Yékini mm. dafa taw te réew ñu ngi bëri. Mm. ay xale lañ bon d'accord mm. grand combat yi ñu am nii ñun si la ñuy sagalee suñu bopp. si la ñu mën a wanee suñu bopp. am na loo xam ne ni dafa ñaaw trop. nañ ko seetaat te làmb ji dafa am ñoo xam ne dañ ciy bokk. beneen arbitre second ñëw ne arbitre bi mu ngi taw. waaw arbitre bi xanaa loolu. arbitre ñëw na ko nii day taw mu ne ko ne mu ne ko temps bi jeex na kii bi jeex na day taw ma ne ko waaw mu daw rama ma téye ko policier bi la ma bàyyil arbitre bi ma bàyyi ko mu dem. dama ko naroon a wax samay dëgg rek du ma ko dóor du ko. wax mu joxe victoire mu joxe victoire. ma sant yàlla dem ba ma demee dem naa si télé ñëpp woo nañu li ma gën a neex si combat bi fu ma jaar Sénégal fu ma jaar. danaan ma si site amul bëri nga ci ngor bëri nga ci fulla te site amul. Hmm. ku ma wax ne ma nii jël amul. mais euh, mais xanaa après loolu am na loo xam ne yoon may na la ko. Hmm. recours muy dugal naa. dugal nga recours mais après amul benn suivi. amul benn suivi. gaa yi tontu wuñ la CNG. ñu la tontu nañ ma bon bindal nañ ma ay kii jox ko sama ménager grand Fallal Ndiaye. ne ma nii sa bopp xaw na laal suuf tuuti jege na ko mais bopp bu laal suuf boo jegee mu takk suuf. yàllaa ma dimbali ba tent bi ma daan def sax te ndax day niroog suuf bi defu defuma ko dafa mel dama koo xamoon. ba ma bëree jog ba ma ñëwee dara takkul suuf sama kii defuma trois appels ñaari appels laa def benn loxo baa ngi ci ngemb li benn tànk baa ngi ci kaw. dañ ko wane. loxo bi ma téye si ngemb li mu ngi ci ma xam naa ne day def pivotement bi ndax dàq ji naa ko ba ci yote saako yi te maa ngi ko téye maa ngi ko ëmb rek la mën a def wala mu génn saako yi wala ma daan ko jël bu rëy hmm. dama téye ngemb li daw puus ko mu rikkale dajale tànk yi mënatul taxaw mu ëpp ko doole daw yóbbu ko leen rek la mën a def pivotement hmm. ba mu defee pivoté ba mu pivoté léegi dama sànnee ko ba ma sànnee koo jog tob xol noonu laa gënoon dansé bu ma jogoon ca kaw la jëm hmm. barki borom daal su ma jogoon dama ko yëkkati ba si kaw euh, fii moom Sénégal la moom ni nga décortiquer bi waaw noonu la ko. noonu la koy tegee xo na ko teg dama daw jàpp ngemb li dama daw jàpp ngemb li dàq ji ko muy génn saako yi dem bay waaj a génn saako yi si la defee pivot ci la loxo loxo bi la ko dugal sama fii nii def pivotement ba mu pivoté si la sànneeku daw teg deux appuis bëggoon muy ba sama bopp mu laal suuf ma def nii loxo bi rëpp loxo bi rëpp ci suuf dama bëggoon siggi bu ma siggoon dama ko féetee si ginnaaw saako yi doo dootu rëcc ndax jàpp ngemba moo ma tóon te da ko doon daw ba ma téyee nag si laa ne baax na si laa daw di ko di ko xar mu rëcc ma daw génn moom saako yi mu def pivotement bu kii ba ma tourné waatee dama am carrément tànk yi dama doon sëgg rek def sélection buddi jog at bi ah, soufflé moom sax da doon bëree waat mais at bi soufflé làmb ji ma am lu ma naqari uh-huh. waaw parce que dama am lu ma naqari parce que bu dul dara sax brise dafa am ñu koy bégee uh-huh. dafa am ñoo xam ne suma ma daanoo duñ reer dafa am ñoo xam ne tey suma daanoo dina def si ñoom loo xam ne dina garaaw trop uh-huh. mbër moo mel noonu mbër bu nekk lu mu ñàkk-ñàkk fay la lu mu dof dof dof dof am na benn supporter boo xam ne nii tey bu daanoo dootul lekk dootul naan dina am problème loolu noonu nag da ko war a sóoraale yow arbitre da nga ko war a sóoraale ak lu làmb mais Brise euh, en tant que sportif mm-hmm. du benn kuréel goo xamante ne que moo mm-hmm. te gis nañu ni chaque saison bu ne mm-hmm. erreur d'arbitrage yi day multiplier wu day bëri bëri te yow en tant que wala en tant tey boo doon addu jëmale ci loolu yan yan pexe tey wala ban xalaat tey ngay xelal CNG en tant que ban xalaat mooy arbitre parce que làmb mun naa ne arbitre ko métti na méttiwul. parce que am na combat yoo xam ne ni mun nga arbitrer sans combat ñu yaakaar na ay na dafa am combat yu lëj. combat mbër yu ndaw yi. moo lëj combat yooyu moo jar a arbitrer. parce que ñoom dañuy bëri ba dugg baat fa. parce que ñeneen mbër yu mag yi da ngay daw plaqué nga ne jaaxaan xànjang tëdd. yee yeeñ mbër dañuy dóor nga daan yi ñu daw song la wala ñu koroxam ñu daan la yooyu yooyu yooyu du lëj parce que mbër mu mag mënul salteel komba mm. mbër yu ndaw yi ñooy bëre ci suuf ba ci kaw ci kaw ba ci suuf mm. daw jël la nga daw dëbb caxabal xar mel ni kuy toog te toogo daw dëbb la nga daw naax nga mbot mm. xam li ma la xatar bi daw caxabal daw song yooyu yëpp dafa bokk si làmb yaa ngi dégg dañuy dem ba ci suuf war a daan wala ñu yeen la war a dóor suuf nga samp sa tànk jàllale kii loolu mooy comme loolu moo naqadee arbitré mais combat mbër yu mag yi. garaaw donc donc genre arbitre yooyu di arbitrer combat yooyu dañ leen war di xoolaat wala di xoolaat seen formation. bon waaw dañuy war a def formation et ñuy def ay sanctions yu métti si ñoom. ci comme ni ñu koy tegee ci mbëri. mbëri hmm. tey su ma doon dañ leen di dagg. waaw waaw seen i licence. waaw mais kon arbitre yi tamit te ci loolu la ñu bokk tamit. waaw parce que su ma dooroon tey arbitre am na benn mbër bu dëkkal Soumbédioune bu ma arbitre bu ma xaat ko kooku dafa bëriwul ren. dañ ko sanctionné te ko lu te pourtant xolam moo jeex moo tax mu def loolu arbitre dafa am dafa am noo war a def arbitre kuñ ne yow yaay atte diggante bii nii mbooloo gi fee mbooloo ngi fii nii war a àtte si yoon nga war a jaar dafa am nooy nooy arbitré combat yi ndaw dafa métti buñ leen doon sanctionné ñu def benn ñu sanctionné leen sanctionné yu métti wala ñu bàyyi keneen ka ñëw war a xam ne si arbitre yi si la yaakaar pour teral si boppam bu ñëwee pour bañ a bàyyi dina teg affaire yi si yoon. te dafa mel ni recours yi léegi du jug kaw. Mhm. wala duñ ko expliquer ñoom waa CNG di gis mbër mu ne la dugal naa recours mais waxaguñ ma dara. waaw wala dugal naa recours mais liñ ma wax comprendre ma ko wala dugal naa recours mais vraiment décision bi ñu maanaam amagul ay passerelles yoo xam ni mbër mi mën na ci jaar pour bu loolu tegoo ci kawam mu xam fan lay jaar. lenn dama ne est-ce que seen fëtu staff yi la ñoom bëri wala seen i ménagère ndax lu waroon danaan bukki bu dabee punkal ñaare ci ni muy doxee la. billaay. Hmm. tey dañ ne buñ dañ ne buñ bu fekkee dañ ne dañuy dugal recours recours bu passe quarante huit heures day am problème wala boo ko dugalee duñ ko jël. day kaddu waaw. léegi yow boo dugalee normalement war nañu am ñoom temps boo xam ne ni force dafa war a génn. Hmm, effectivement man sama recours bu ma dugalee recours toog naa lu yàgg xaw man dama dem ba fàtte sax ne ma dugal naa recours ñu door ma génneel ay jékki-jékki bàyyi ba benn semaine ñu bindal ma ay kayit joxal ma ko faalal ne booy bi bopp bi laal na suuf xaw na jege suuf bi affaire yooyu nangam. tey tey loolu noonu même bu ñu ko yéene même boo ci d'accordul tu es obligé nangu. ndax amatuloo fenn fooy jaar. fooy dem fooy dem euh, donc donc loolu lu jar a interpellé euh, le président Alioune Sarr la mhm. euh, dëgg-dëgg mu ngi def liggéey bu rëy liggéey bu mucc ayib ci làmb mais tamit erreur d'arbitrage yi bari na ci làmb ci mhm. boo dee xool saison bu ci nekk dinañ ci noter une dizaine de fautes arbitraires mhm. dëgg la nag kii arbitre nit la waaye tamit ñaari mbër yi sa gi bi bëri tamit ay nit lañu te ay nit leen yëpp ay nit leen entraîné ay nit ñoo leen yor donc ci ci durée de validité bi recours bi génn CNG di tontu des fois day gudd ba bu mbër mi ñëwee sax ñu ne ko yaa daan dootu sax ay supporters wala bu mbër mi ñëwee euh, maanaam bu recours bi ñëwee ñu ne mbër mi jox nañu dëgg après dina ko fekk boobu mu dund naqaram ci combat bi mu jugee donc le président Alioune Sall ñu ngi lay laaj sunu sunu arbitre yi. di bénéficier wu ay formation comme ni ñu koy defee ci arbitre de football yi wala ci arbitre de basket yi wala ci arbitre de handball bu ñu jël làmb rek ne noo benn esport culturel la noonu non làmb léegi euh, euh, yeesu na dimension yooyu parce que lii Brise Mer jooju tey am na mbër yu bëri yu ko fi jooytu waaye dañuy gis yàgg yàgg yàgg njaw day desoo xam ne Brise de Mer euh, jóge ci combat boobu si diggante Alioune Seye mm-hmm. Brise koo xam-xam ni ñi mu war a dajal ci làmb ji bari na. Hmm. xale yaa ngi yéeg ci xale yi sax nga bokk. waaye tey ku ci mel ni ay dumbul ñu ngi fi ku ci mel ni ay Modja ay ambulance ay Queens ay armée ay Diène xale yooyu tey bu Brise doon defaat benn sortie est-ce que day façonné nag jàkkaarloog nouvelle génération boobu pour <laughs> que may leen seen chance. waaw Bour <laughs> làmb ji xam nga des fois boo toogee laaj mbër hmm. dañ naan kii pare na la. wala affaire yooyu noonu benn man maa ngi xool sama carrière benn yoon laa mos a toog ne jox leen ma diw. Mm, muy kan fëgg la fëgg la bu lamsaar. te ba tey taxul ngeen daje. te boobu taxuñu daje combat daaw bamba dox na ko ba sonn avant muy taxawal combat benn parce que dafa amoon combat moo xam ak kan. ngeer mm. bu zap. ngeer def blessure bu métti. Mm. léegi bamba gis ma ne ma ndax di nga mën a bëre fëgg la ma ne ko ci lu wér. mu woo ma feene ma dem waxtaan ak moom affaire yooyu ma ne ko demal gis ko su ngeen d'accord rek man amu problème mu ne ma d'accord dem gis ko affaire yooyu mu nangu ba ci kanam bañaat xaw ma lu waral loolu benn yoon laa mos a toog dem télé toog ak ñoom gaayam ñoom kii ne leen dama soxla fëgg la. mais abar saa loolu mais mais ba tey sa diggante fëgg la lu lu xelam làmb bu mën a nangu. dafa ñor dafa ñor. Hmm, dañu war a bëri fëgg la loolu benn affaire la. combat la. loolu benn affaire la gannaaw xamoo man saa yi xam nga combat yi ma juum yëpp xool ko xool ko. xama lay xeeb da ngay nekk mbër bu ndaw man bugguma bëre mbër bu ndaw man moom xam naa la yàgg naa la topp waaw léegi rek euh, maa la ko wax sànq fii naan la keroog ba ngay dajeeg ay kon terrain jiboo bi manu production tey mu ngi États-Unis ñu ngi koy nuyu suñu grand manu mhm. keroog ay kon Balla Gaye euh, Balla Gaye de moo indi moo ko indi Brise nekk nekk xale bu xale mbërëntaan waaw bëri bëri faak moom lu moom lu Sénégal bi loolu ba tey amateur koy namm ci waaw mm. ba léegi bëri bu gën a salté boobu moo fi nekk mais balaa ma ko mën a bëree dëgg ma taseeg luur ponkal man xam nga la laa mën a koo xam ne dañ naan kii tey mu rey la at bi suuf la mu ñëw teg la lu métti man loolu laa bëgg mais dóor ku ñëw sa kaw ngay anière wala ngay kii damay découragé loo ci làmb damay jékki-jékki def benn faux pas nga am dara bon ñu jox la victoire wala affaire noonu mais dama bëgg man koo xam ne ni bu at bi suuflee mu ñëw ma ñëw fëgg la gaynde la di prise moom moo tax ma bëgg a bëre na day xeex day dem doole ji bari na te mën na bëri loolu laa soxla ci mbër nag li nga wax ni dama bëgg man bëre mbër bu mel noonu mbër boo xam ne dalay lay teg lu métti nga xam ne ne carrément kii nii li mu lay teg mooy loolu loolu mooy làmb làmb jël avance nit at bi suuf nga nekk fa di calli calli dugg bi dugg li loolu du làmb làmb da nga war a def loo xam ne nii Sénégal dañ ciy teg seen bët xam ne carrément kii trop nañ la jox fëgal la nga defal ko bagage billaay ku dul fëgal sa am na ñeneen ñoo xam ne ni bëgg naa bëri ñoom mais bëgguma toog ci télé naan la diw kii nii diw nii diw nii. waaw mais c'est que fëgal dañ ko doxoon daaw moo war a sax ma toogaat nii ne la fëgal nii. mais sa combat dumbul nag. dumbul dumbul dumbul. Ah, borom dooleel taxale la de. bon mais dafa am tuuti lu si tilim ci soow mi. mooy lan. Malick Niang. sa waay la. sama doomu ndey la waaw Ndakaaru. waaw ah, ñëwaat Dóor waar. Mm. connexion bi mm. xamante bu baax. seq lu bari. Mm. loolu kese ma xaw a jaaxal si ko mais tamit Brise de bi ñu xamoon écurie Ndakaaru. ak brise de mer bi nekk te écrit Dóor waar Dóor que amul différence bii moo gën a baax sax mhm. bu nekk écrit Dakar mhm. baaxoon na trop di def foo et flamme di def lu ma neex mhm. am tamit encadrement am lépp mais bii nii da ngaa jege say bokk dama jege sama bopp sama mbokk dama ñëw sama dëkk ma dëkk fa war leen sigil bu ma amee combat fii nii nu may jëlee pression bi sax par rapport ak yeneen da am combat écrit bu amatee combat naa la woo écrit bi fees dell waa Grand Mille ñëpp di seeraan sama entraînement am confiance may dem bëre ñëpp def kaar topp ma. kon daal Brise nga ñëw. waaw sa sa dernier <laughs> sama dernier moo mooy damay sant Sénégal yëpp sant waa Grand Mille sant samay dëkkandoo yi sant ñi nga xam ne ni ñu ngi dëkk si koñ bi di ma jàppale guddeeg bëccëg ci zaahir ak baatin nag laa la wax xam nga jàppale mbër nekkul ko dangay jël xaalis di ko jox wala nga def lii nii jàppale mbër si xol la te ñëpp laay seqal jàmm. jàmm ji si koñ bi ñëpp la amul kenn ku ñu kër gi dinaa si dugg wala kër gi duma si dugg ñëpp laa jàppee ñu ma mat papa ma jàppee leen ñu ma mat yaay ma jàppe leen yaay ñi ma mat raq jàppee leen sama combat du bu combat yi jege du ma dem fenn booy yëpp sama gaale la ñuy nekk ceene toog lu ma soxla dañ ma koy defal lu ma soxla dañ ma koy indil xam loolu yëpp sant yàlla man gaayanu booy laa xaritu booy yi ñu nekk si koñ bi yëpp laa jox cër grand bi ne aw ma ci kenn xaar ma yàlla ñëpp laa respecté di leen ñaanal nag te di leen wax tàllaleen sama loxo di leen wax ñu ñaanal ma yaa ngi dégg di sant waa Kaffrine fi ma dëkk waa jàmm gën waa Touba Kër Seex waa Pakala li wër Kaffrine yëpp maa leen di ziar bu wér sama maire Abdoulaye Wilane sama yaay maa ngi koy sant bu baax ndax dafa sonn ci man te bëgg naa dem ba teral ko incha allah te ñaan naa ko yàlla sama maa ngi koy sant bu baax samay mag yu jigéen waaw waa koñ bi yëpp maa ngi sant bu baax di leen gërëm di sant waa Maris ñoom Seynabou fu may ngemboo waa Maris 2 maa leen sant bu baax a baax a baax sant sama papa bi ni Mamar Dieng Mamar maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant waa Sénégal yëpp di sant waa écurie Ndakaaru waa écurie Ndakaaru di sant waa écurie Dóor waar parce que bu ma ne waa écurie Ndakaaru waa écurie Ndakaaru def nañ si man dara moo tax ma ni maa sant waa écurie Ndakaaru bu baax di sant waa écurie Dóor waar parce que staff bi baax na ñu ngi may jàppale ñoom Grand Fadal ñoom Mbodj ñoom ñoom Abu gars yëpp maa leen sant bu baax Yékini Junior maa ngi koy sant bu baax parce que mu ngi may jàppale waaw adduna noonu la waaye fëgg la. waaw fëgg la moom maa ci kawam. nee ko yaa ngi ñëw. maa ngi ñëw budul fëgg ma bëgg naa daal man daal xoolal bëgg naa combat bu métti. combat boo xam ne daal ngeen di tar combat boo xam ne nii voilà combat bu méttee métti laa bëgg. jërëjëf waaw <laughs> jërëjëf euh, Brise de Mer tamit ñu di la gërëm ci yombal yombal liggéey bi. di remercier aussi tamit grand Fadel. Mm-hmm. ndax vraiment biñ ko woowee parce que lii dafa neex. Mm-hmm. dama koy wax sànq ne mbër yi maanaam ki la ki maanaam ki lay woo. pour nga wax ak askan wi wax ak say supporters. Hmm. kooku mooy sa mbokk mais souvent daje ak mbër bëgg gisee moom ci émission dafay xaw metti hmm. te ñun lii li li ñuy def moom lañu séq ak askan wi. Hmm. dama leen wax fii sànq ne ak Sénégal Sénégal day dem. kon mbokk yi seetaan ngeen ko. ma sànni ci ñaari kàddu. dama bëgg tamit télé yi. ñu mel ni yéen ñu siy toog. parce que buur jayuma la de mais yow da nga da da nga da nga si làmb yow mbëppat mbappatoo mbappat da nga fay dem église xam nga fa xam nga gaal gi xam nga fu ne nga xam da nga da nga tarbiyu si làmb dafa am ñoo dañuy toog tele ñu jox leen micro ñu nekk di tarar xamuñ luy làmb parce que dañuy jékki-jékki dégg xaalisu làmb dañoo toog télé genre yi mel ni yéen nga xam ne dañoo tarbiyu làmb xam mbappat yi xam géew yi dama bëgg ñu leen di génne si télé yi ñuy def émission yu mel nii loolu dafa am solo trop. jërëjëf euh, jërëjëf euh, prise de maire <laughs> xam naa ne gars yi gars yi dégg nañ la hmm. xanaa rek euh, di jox gars yi rendez-vous. ci beneen numéro sur la senego point com bu la neexee nga cliquer Senego TV loolu neex di nga ko xam ci sport. loolu neex di nga ko xam ci làmb. actualité national international fait divers politique dama wax ni gars yi bu kenn daw la Senego arrive te bu ñëwee ku fekk dana dal sa kaw kon man ak yéen ci beneen numéro.